wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi wa sallama taslima mbokki jullit yi mbokki talibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi leen di nuyu nuyub jullit ak mbokkum jullitam di leen nuyu nuyub talibe ak mbokkum talibeem di ñaanal cheikh mohammadul muntaqa al xalifa sunu boroom yàggal ko fi yokk kàttanam ba mottali ay yéeneem ak ay naanam ci liggéeyal xaadimu te tam ànd kook mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa yépp mbooleem kilifa diine yi ak jullit yi ak mbooleem taalibe yi di ziyaare bu baax mbooleem ahlu daairo safinatul aman ci njiital sëriñ Ibrahima jenn no ngi koy nuyu di ko ziyaare di ziyaare bu baax sëriñ Mor mi nga xam ne moo yore kàddu gi di ziyaare bu baax it boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom lañu seqal lajnatu saqafiya buñ ci tuddee sëriñ Xaadim Njaay dana jàllale nuyoo bi ak ziyaar bi ci mbokk yépp di ziyaare mbooleem ñi nga xam ne ñoo doon jàng xaside yi di sant borom bi subhanahu wa taala bu baax ci boole gim nu booleeg Serigne Touba Cheikhul Khadim sant ko it ci jubal gim nu jubal ñu jublu aw yoonam te di ko liggéeyal damay wax ne yu mel nii buñ ci eggee di waxtaan ak mbokk yi dafay am solo ndax da loo xam ne dafay dolli nit ki ci jamono bu nekk dama wax ne man duma boroom xam-xam boo xam ne may waxtaane yeneen fànn man sëñ Tuubaa lay waxtaane Ahmadu li taxit mooy kenn ku nekk dafa am lu mu bëgg am lu mu opte waaye nun sunu gëstu ak sunu waxtaan dañ koo joyal ci waxtaane sëñ Tuubaa loolu it mooy li gën ndax waxtaanee sëriñ Touba mooy li gënal yàlla ci kaw suuf sëriñ Touba dafa wax ni dama dem ca sama borom ne ko yow yàlla de nag ma booleek mbooloo mu bari moo xam ne dañ ma gëm wóolu ma yaakaar ma ma bëgg nga wax ma loo xam ne li nga gën a bëgg ma leen koy digal ñu di ko def ngir bu yow ma la xiyaamee yaakaar giñ ma yaakaar du tas sëñ Tuubaa nee na keroog yàlla dana teg ba ma ne bu doon koy fàtte day fàtte na ko ma dellu ko baamu ba mu ñett yoon mu ne ma ahmadu ma ne ko mbakke mu ne ma ñooñu amuñu lu gën waxtaane sa jëmm ji nañ koy def ma waxtaane moo tax ma ne man waxtaane sëñ xooluma ci lenn man na taalibee sëñ Tuubaa di noos ci daam dañuy noos rek ci ahmadu loolu rek moom moo moo concerné fekk nit ñaa ngi bëgg ci ci sëñ Tuubaa rek man baax na leneen garaawul dadi lu doy waar ndax waxtaane jëmmi sëñ Tuubaa ji mooy waxtaane jëmmi alayhi salaatu wasalaam waxtaane jëmmi sëñ Tuubaa it mooy waxtaane jëmmi borom bi subhanahu wa taala te boo waxtaanee lii waxtaane nga àdduna gi ci biir waxtaane nga mbooleem lu nit laal ci lu baax ndax àdduna ñaar yi moo fi gën muy alquran ak lislaam te benn bu ci nekk sëriñ Tuubaa nee na sama borom moo ma ko may nazaa lil islaama inda xurbati la dal jazairil munira turbati waaye nusi ali nuuru lisaani wal kitaab ashmaana xidmati la da ahlul kitaab kon boo waxtaanee jëmmi alayhi salaatu wasalaam waxtaane nga lépp waxtaanee yonent bi alayhi salaatu wasalaam it dafay tegtale nit ki ne ñun njëkk ñuy doon ay murit dañoo doon ay mu'min muslim muhsin ndax al murid huwa al muminu al muslimu al muhsin allazi fi kulli aqwalihi wa afalihi kon yonte bi alayhi salaatu wasalaam ñépp a ko bokk yonte bi alayhi salaatu wasalaam mooy kilifa ak ñépp waaye bu nu xoolee nag ci Sëriñ Tuuba dana nu fekk mu nuy leeral yonente bi alayhi salaatu wasalaam leeral nu cofeel gi dox diggam ak alayhi salaatu wasalaam te bëgg ko moom alayhi salaatu wasalaam dañuy wax ne mooy ngëneel mooy tedd nga mooy wàccuwaay bi nga xam ne it mooy sopp alayhi salaatu wasalaam ne way njëkkalante yépp ca la ñu daw jëm ndax mooy xuutul xuluub wa iddahu arwaax wa xorratul uyuun wa hiya xayaatu lati man xarama afuuhu min jumlatil amwaat dañuy wax ne bëgg yonte bi alayhi salaatu wasalaam mooy dundal ab xol bëgg yonte bi alayhi salaatu wasalaam mooy dundal ak ruux mooy dalal am xel bëgg alayhi salaatu wasalaam mooy dund goo xam ne ku ko amul dañu lay limaale ci woy faatu yi wa hiya man xarama afuuhu min jumlatil amwaat tabbi ci géejug lëndëm te yonente bi alayhi salaatu wasalaam jaam bi ak gëmam du mat lu dul ne da ko gëna a léppam ni ko abu xurayra waxe ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa yuminu ahadukum xata akuna ahabu ilayhi min waladi wa walidi wa ahli wa maali wa naasu ajmain mu ne yonent bi nee na kenn ci yéen ak ngëm yàlla du mag li fekk dama ko gënal boppam gënal ko ay doomam gënal ko ay waajuram gënal ko ñoñam gënal ko alalam gënal ko ci mbooleem nit ñëpp loolu moo tax ku ñu wax sayyidina ali ibnu abi talib daana wax ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa ahabu ilayna min amwalina wa awlaadina wa abaina wa ummuhatina wa min al maa il barid ala saman mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gën ci ñun suñu alal gën ci suñuy doom gën suñuy waajur yu góor ak suñu waajur yu jigéen ñuy misaal ne bëgg alayhi salaatu wasalaam mi ngi mel ni tey bu nit ki demoon ba ci benn àll boo xam ne kenn nekku fa am margaar ko mu bëgg am ndox amu te kenn nekku fa amul ko may ndox mu daal di jekki-jekki geesu gis ku ko jox kaasub ndox bu sedd guyyu nee na ni muy yëge ndox moomu ci biir ab xolam nee na noonu la nit ci di bëggee yége bëgg alayhi salaatu wasalaam ñu ne yonte bi alayhi salaatu wasalaam nag ñooñam dañu koo sopp bëgg goo xam ne mel ni misaal mënu ne mel dafa am ci ab xol benn taaxa benn énergie bu nekk ci ab xol boo xam ne dara mënu koo jañ dara mënu koo ñoddi lu dul bëgg yàlla ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam te bëgg googu mooy wamme nit ki mu jëm ca la mu tànn jëm ca la mu bëgg te ku yàlla defalul tawfeex nga bëgg alayhi salaatu wasalaam kooku dañuy wax ne dundam gépp lëndëm la alkande la waaye njàqare la xumumun wa alaamun wa xasaratun ñu ne kon man si bii nag benn jaam du ci yegg ci lu dul mu jaar ci yoon wi nga xam ne moo koy wommet te bu sunu borom subhanahu wa taala nemmee ci jaam bi ngëneel day def ci biir xolom mu bëgg alayhi salaatu wasalaam loolu moo tax Serigne Touba di wax ne rabiha su tijaaratu qad tajarra bi qubbi saafiil ada alfajara nee na képp koo xam ne na nekk ci marché di yaxantu te sa marchandise di bëgg alayhi salaatu wasalaam Serigne Touba nee na kooku du perte mukk te bëgg googu jàmm bi di bëgg alayhi salaatu wasalaam dafa am lu koy tegtale mooy bëgg ko ci ab xolam te loolu mooy tax yàlla day bij ji xolub jaam bi bëgg alayhi salaatu wasalaam mu jëm ci rasulullah nga xam ne da ciy sant yàlla loolu moo tax Serigne Touba di wax ne xamitu illaahi bi shukrin lahu ala jasbi xalbi li xubbi nasiya nee na maa ngi sant yàlla lan moo tax ma koy sant muy bijj gim bijj sama xol jëmale gim jëmale sama xol ci bëgg alayhi salaatu wasalaam loolu moo tax bu ñuy misaal ci àdduna bëgg alayhi salaatu wasalaam li muy jaral nit ki léeg-léegi da ngay dégg nit ñoo xam ne dañu jàpp ne murit yi sax bëgg gin bëgg sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim dafay génn ci ñoom bëgg alayhi salaatu wasalaam waaye dañoo juum déedéet bëgg yàlla ak bëgg alayhi salaatu wasalaam ak bëggu nitug yàlla benn la ndax tuubaa li man amana ahlullahi waylun li man ankara ahlullah te ki gën a bëgg alayhi wa wasalaam ci kaw suuf mooy Ahmadou Bamba sëñ Tuubaa li ko rasulullahi jaralit kenn mësu ko koo jaral moom sëriñ Tuubaa te day xaraam bi mu tabbi ajana bu fekkee ne won na ginnaaw yoon wi alayhi salaatu wasalaam andi ak njub gi mu indi te loolu it boo ko Sëriñ Tuubaa di misaal xaraamun ala man hudaahul aba duxulun jinaanun daxilun tariq wa man lam yalit nahjuhu yuntazar bi xullin zaqirin wa naarin lafuux kon xaraam na ci kenn muy jóg di tàbbi ajana bu fekkee ne won na ginnaaw alayhi salaatu wasalaam waaye Sëriñ Tuubaa nee na du yem ci tàbbi sawara sax waaye ñi ngi koy xaare ay lëggi lëggi sawara yoo xam ne ca jahannama lañ ko pekkee fa lañ ko jëlee mu nekk ay jëng kon sëriñ Tuubaa mooy ki gën a bëgg alayhi salaatu wasalaam moo tax sëñ Mor nee naa la man ne nit ñi di wax rek man may waxtaane sëñ Tuubaa loo gis ci àdduna ci lu baax sëriñ Tuubaa ko raw sëñ Tuubaa ci raw moo peeg mboolem lu gaay yi yàlla yi jógoon bëgg ko sëriñ Tuubaa ko amee te li ko ko may mooy bëgg alayhi salaatu mu jaral ko léppam nag xoolal léeg-léeg yi damay da ngay dégg ñuy misaal yenn bayit yoo xam ne bu ñu koy wax day lànd ci sab nopp ba duutoo xam tolluwaayu bayit bi waaye xoolal mahat mahabati yal muxtaara sayidina qubbil maaniya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaaun lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada mahat mahabati yal muxtaara sayidina mooy bëgg alayhi salatu wasalaam bind na ci sama xol xubbul maaniya muy bëgg ko moom xoolal bi Serigne Touba day wan ginnaaw buur yi àdduna ngir bëgg alayhi salaatu wasalaam booba Serigne Touba këram day am njël du am xaalis bu mu mën a joxe njël bi. ameel na naar bu ñuy wax Serif Assane ñetti dërëm Cheikh Ahmadou Bamba moo toog bindal boppam ab kaamil ànd ak ma Massamba Diop Sam ak Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ wala maam Thierno Ibrahima maam Thierno Ibrahima Fati borom Daaru Moxti ñu wër Kajoor ak Bawol di jaay tere ba kenn jëndul. te xoolal li muy ñàkk ñàkk ñetti dërëm yooyu booba nee na buur yi ñu ngi naan maan yow Ahmadou Bamba jengal nga jëm ci buntu wuur yi xaalu li yar kan li abwaabi salaatini taxus jawaisa toni kullu ma xiini fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi wa lastu raadi xayrul almi wa diini keroog dama ne leen man Ahmadou Bamba yàlla doy na ma sëkk te doyloo naa ko gërëm ma lu dul xam-xam ak diine ragaluma kenn yaakaaruma kenn xam naa sëñ Xaadim ma joxoon benn thème boo xam ne ñu waxtaane ci li xew ci jamono waaye xoolal sëñ Tuubaa ni mu ko indee ci téere boobu anni ufawwidu ahwaali li man ajasu an qaali anfusihim ajzal masakin sëriñ Tuubaa nee na man Ahmadou Bamba nan laay jële sama mbir di ko bàyyeek ñoo xam ne seen mbiri bopp yañ nekk da leen na te ticc bañ mel ni ay miskin nga xam ne mënuluñ dara seen bopp luñ bëgg dañuy jóg sàkku ci ko ci doomu aadama yi sàkku ci ñoom nax leen ba am luñ bëgg waaye mënuluñ dara seen bopp waaye xoolal aw kayfa yabxazu nii xubbul xutaami ila jiwaari man duruhum rawdu sayatin nan laay jëlee dem di dëkkaaleeg ñoo xam ne seen kër yëpp ñooy dari saytaane in kuntu sa hazanin aw kuntu sa watarin daawtu sal ayni xabla ra'i wa sini su ma amee xaajo wala ma am njàqare yàlla képp laa ciy woo daal di jàngale tawxiit nag moom sëñ Tuubaa wa huwa al muayisu lasi laa a ay yujisuhu wa huwa al mukawinu ma sha ya takwini dafa mel ni dañ ne ko waa sal ars moom mooy kan mu ne di ji nga xam ne dara lutul ci moom lépp lu mu bëgg amal amal ko lépp lu mu bëgg mu gaaw mu gaaw lépp lu mu bëgg mu yeex mu yeex nga xam ne waxul moo aysu la si laa say yojisuhu wa huwa al mukawwinu ma shaa ya takwini in shaa taajila amrin kaana saa ajalin aw saa taajilahu yabta ila xini nga xool sëñ Tuubaa xubbul maaniya wal ahlina muy jaay gi mu jaay ñoñam keroog bi muy génn Mbàkke Bari Jolof sëñ Tuubaa moo bind ab leetar jox ko maam Cerno Ibrahima Faty ne ko xoolal njaboot gi na ko nekk dem ci barab ba mu des soxna Fatou Madou maam ndax dafa am lu mu àndal bu a jamono di góor nañ ko tudd Mouhamadul Bachir bu dee jigéen soxna Khadija daal di bàyyi ak njabootam waaye xoolal it wal wala daa muy jaay gi mu jaay doom moom sëñ Tuubaa nga xam ne xolom bi man bi xobbihi nasiitu layla wa sahaban wa fiddatan wa qayala juttu luhul yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidaya fil Ahmadou Bamba la jox rasulullah bayu dara ay doomam xoolal keroog bi tubaab yi génnee lakk kërug Mbàkke Bari Jolof gi borom daaru moo te ànd ak njabootu Serigne Touba gi Serigne Mourou Moustapha toll ci juróom at sëñ Fallou toll juróom-ñeenti at sëñ Baara toll ci juróomi at fu ñu dem ñu dàq leen yóbbu leen guy ngora ak mbay dee ngir bëgg bu fa demee tawat dal leen njabootu Serigne Touba yépp tawat keroog xoolal bi sëriñ tubaa di bind borom daaru moo te bind Serigne Touba ab leetar ne njaboot gi dañoo tawat sëñ Mudu Mustafaa sëñ Fallu sëñ Baara booba sëriñ Tuubaa àgg na ci maqaama mii ma la wax muy mahat mahabatil muxtaara waaye xoole bi mu jotee ci leetar bi deful tawasul ñaanut ngir sëñ Mudu Mustafaa wala sëñ Fallu wala sëñ Baara kenn wér dafa wax ne Muhammadul Mustafaa bi yedd rasulullahi falyafali dama shaabi Mudu Mustafaa baa ko tuddee baa ko tuddee Mustafaa laa ko teg ci loxo loxoy rasulullahi na tawet man def lu ko neex Muhammad al Fadal bi yadillahi falyafali dama shaabi Muhammadul Amin Baara bi yeddil qur'ani falyafali dama shaabi kon kooku njabootam gépp la bàyyi moom sëñ Tuubaa waaye xoolal it ni mu joxe dam mi muy deretam ni mu ko joxe alayhi salaatu wasalaam moo tax bu ñu wax ne sëriñ Tuubaa nee na jàpp leen sama xaside yi ndax dafa mel ni sama yàpp yaram laa dagg di leen ko jox moo tax xasida lu mat a fonk la sëñ Mor ñuy jàng xasida sax nga toog ci ginnaaw di wax wala nga ree erreur la am na bis boo xam ne dañuy jàng xasida ci njaareem ma Massamba Mbacke dal di am gan am ku ñëw ba toog daal di koy dee ne ko Mbàkke dana nga am gan ca biir bi ko sëñ Tuubaa yéegee dafa wax ne bu ngeen bàyyiwul ñu jàng sama xasida yi ngeen ciy ruut ci biir ay wax malaaka yi dana leen jaawale tàbbaleen sawara kon kon xasida kenn du kenn du moom sëñ Abdou Karim Touré suñ Tuubaa da ko dafa mas a ànd ak moom ci njaareem ba ci benn néeg bu yaatu sëñ Tuubaa ne ko Abdou Karim mu ne ko Mbàkke mu ne ko lu nekk fii mu ne ko Mbàkke lii da day nuru ay téere mu ne ko hakaza noonu la daal di ko Abdou Karim ko Mbàkke mu ne ko lii laa ci géej gi abdul karim mu ne ko mbakke mu ne ko am na yu ñëwut ndax bi ma ko bindee jinne yi ak malaayka yi ñoo ko jël di ko barkeeloo te buñ ko indi watee saada taxaw abdul karim mu ne ko mbakke mu ne ko ndax xam nga fulkul masoon mu ne ko mbakke maa ngi koy dégg mu ne ko ci géej gi ko taalifi def naa ci li xew tey ak ëllëg faggul leen sa seenug taxe adduna ak àllaaxira faggul leen ca canug jigéenul óoru ayni ya ba yéenal fa nekkal sëñ Abdou Karim Touré ne ko ana téere bi mu ne ko dañ koy móol mu ne ko makkata aw madina aw iraq aw maxrib yi sëñ Tuubaa ne ko taxtal arsi wal kursi mu ne dara daanu sëñ Tuubaa ne ko fii nga toll yàlla saa borom xamal ne ma ne am nga koo gën te ci bëgg alayhi salaatu wasalaam moom sëñ Tuubaa ci la binde lu kenn mës a bind ci la tagge lu kenn mës a tagg ci la waxee lu kenn mës a wax ci la amee lu kenn mës a am ci la jiitoo ñëpp it moom sëñ Tuubaa huwal xaws qutbul awliya jamiahum junaydihim wa saasali wa ahmada wa xayrihim min azadati xawa xula fa kulluhum ama xaaxat kaana maqaada kooku ba muy tagg almachar yi dafa jëlale perentar yi moo tax man la sëñ Tuubaa képp moo fi nekk ñun danoo am lu kenn amul ku am lu kenn amul rek na war a mel nu kenn melut dañoo war a way sëñ Abdul Ahad Mbàkke dafa daan wax ne ab murit day mel ni ëkk ëkk du ngelaw lu ñëw rekk puus la wala mu dandal la wala mu yóbbu te murit yi fulla jooju ak jom jooju war a am jàpp ci Serigne Touba lu dul Serigne Touba ñu won ko ginnaaw te Serigne Touba lii mu am nii ba mu ko bëggee am dafa wax ne nëbbatukum ma ala kaddin badali qabla an araari dal mu abada kon ay coono yu métti la waaye nag lan moo ko ko may muy bàyyi ginnaawam lépp gis nga lii gaa yi di wax boole Serigne Touba ak leneen nanguwut de dafa am mag moo xam ne bi mu jébbaloo ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa da ko tariloo fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saalihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahad mu tari ko sëñ Tuubaa ne ko sàllaaw loolu saa borom mooma ci tane ndax lim ci mën a muñ mënu ma cee muñ wala yusrik bi mu bokkaale ak dara sëñ Tuubaa ko loolu yàlla mooma ci tane ndax lim ci mën a muñ mënu ma cee muñ bokkaale gi la koy junj di ko xamal ne ko yàlla moom moom bindeef yépp moo leen bind sàkk leen moom leen ba noppi ñu buutee bare ay melokaan yàlla man nga koo bokkaale te du tax mu génn ci yow ne ko waaye man Ahmadou Bamba ku ma boole ak lenn ma bàyyi la loola Serigne Touba nanguwut ku koy booleeg dara daal di woo sëñ Mor Sekri Diall ci misaal woo sëñ moor Sekri Diall daal di koy jox ñaari dàll daal na ko bokkal benn bi mu bokk ko sëriñ Touba daal di yëkkati beneen dàll bi ci loxo ba ca kaw daal na ko yuutu ko ci loxo bii nga bokke dàll bi te bu bi wadd sëñ Mor Sekk xam xel na bu ko defee moom dàll bii dana wadd sëñ Touba ne ko hakasa nii la sëñ Mor sëñ Touba kenn du ko jàpp di seet leneen barkab sëñ Touba sëñ Touba ci xol ak leneen baaxul da yàq ab sëñ Touba képp sëñ Touba rek sëñ Touba dong ci ab xol waaye xoolal léegi loolu liñ ci mën a misaal mooy sëñ Touba sëñ Abdou sëñ Touba bi mu bëggee alayhi salaatu wasalaam léppam la dégaase lépp la dégaase amul lenn loo xam ne. yi xusuuri xallat wal ahlu ani tafarraqat li maddixi lazi an xu maddixu xasiiru lan moo ko jalaloon muy tagg alayhi salaatu wasalaam ak bëgg ko léppam la dégagé waaye yow na nga naan dama bëgg sëriñ Tuubaa waaye bëgg boole sëriñ Tuubaa lu ne loo jël wala loo fexe ak weñ ak lu nekk nga takk ko daan na sëriñ Tuubaa bëgg doon jànkatu xasida bëgg doon am mburum làmb wala ngay seetaan làmb bëgg doon jànkatu xasida ba noppi bëgg nekk ab fecckat wala ngay siifur ab fecckat bëgg doon mburum làmb ba noppi bëgg nekk ab musicien foo toll jël say casque de loolu mënta ànd wallahi lancim te sëriñ Tuubaa nee na sëñ Xamsatu Jaxate Xamsatu mu ne ko Mbakke mu ne ko sama taalibe fu mu nekk di benn maa ko ñaareel sama taalibe fu mu di ñaar maa ko ñetteel sama taalibe fu mu nekk di ñett di mbooloo maa ngi ci seen biir foo nekk sëñ Tuubaa nga fa foo nekk sëñ Tuubaa nga fa te sëñ Mor sëñ Tuubaa war nañ ko jox àq war na jox Sëñ Tuubaa àq bu baax ndax li nu fàggul lim nu defal lim nu may ku dul moom moo mënu ko Sëñ Tuubaa lim nu fàggul li nu may li nu defal ku Ahmadu mënu ko ci ñun amul kenn ci ñun koo xam ne defal nga Sëriñ Tuubaa lu tax mu mën laa tànn boo déggee Ahmadu sa xol sedd ci amul te dañoo tànn tànn ñu ci biir tànn fekk alayhi salaatu wasalaam ñu war ko koo delloo moo tax may wax ne sëñ Tuubaa mooy ki ëpp jom mooy ki ëpp ngor mooy ki ëpp fit xoolal bi mu waxee ne bëgg alayhi salaatu wasalaam rasulullahi moo dem ca sama borom na ma yow yàlla ahmadou bamba dama bëgg nga def ko xaadim bi nga xam ne may liggéeyal sëriñ Tuubaa dana waa man xoolal rasulullahi ni mu màggee ni mu teddee nga xam ne min nuurihi kullu nuurin satian bi shana nuur nujumi wa nuuru samsi wal xamar rasulullahi moom moo fi bàyyi ñëpp dikk na ma ba ma daal yow laa bëgg nga nekk xaadim bi nga xam ne moom ay yaamay liggéeyal ala lasi talaba kawni al qadim luhu shalama silbarit qadim moo tax sëñ tubaa daal ne kon man su ma amee jom dana yell dana war dana jaadu ci man ma fexe liggéey rasulullahi liggéey boo xam ne kenn mësu su ko liggéeyal ko dul man faraxtuhu bi qidamin la shaniya te noonu la ko defee it tey jii foo mën a taxaw ci àdduna xam ne Serigne Touba liggéey na rasulullahi lu ko kenn mës a liggéeyal ñun nag dañoo war a roy loola xam nga woykat bi nee na mënee fu laa rey mënee fu roy te nga roy kenn nga bamba waaye ñun dañ ko war a jim nag waaw te ni ñuy tàmbalee roy sëriñ Touba mooy mbooloo moo bokk ñuy liggéeyal Serigne Touba bu la ca kenn raw xam nga ne mbooloo mi ni mu ni mu ni mu ni mu daan tool chaque jour am ko wàññeeku wala chaque jour am ko dolleeku ñaar yooyu rek moo fi mu nekk ñii dañuy dem ñii di ñëw kenn ku nekk yi ak pas-pasam ba mu amee waaye pas-pasu liggéeyub sëñ Tuubaa boo toogee ñu liggéeyub sëñ Tuubaa nga jóg dem xamal na yaa ngi fa nga jëm bu fekkee liggéeyub sëñ Tuubaa nekku fa maanaam fii ko gën ndax temps bi ngay génn di dox rek temps boobu man nga cee gis wala nga wax fi wala nga jëf fi loo xam ne sëñ Tuubaa bëggu ko te bu fekkee ne jàng xasida lu doy waar bu fekkee waxtaane sëñ Tuubaa lu doy waar kon nan góorgóorlu ci liggéeyal sëriñ Touba nan góor góoru ci liggéeyal sëriñ Touba kenn ku nekk nag sëriñ Touba xam na la nga koy liggéeyal te Seex Muhammadul Muntaxa nee na sëriñ Basiru Baye moo ko wax ne ko sëriñ Touba de sala am na ful la foo toll mu toll na fa moo tax kenn mënta ndax sëriñ Touba sëñ Mor bul gis kenn di ko yéem wala nga koy naw sëriñ Touba rek mooy fay boo gisee Seex Njaay Gànna yaakaar ne ko baax la su wéetee def na ko sul noonu sëriñ Touba xam na ko di kenn mënu ko ndax te damay misaal ne léeg-léeg nga gis am na ñoo xam ne dañoo dof am na ñoo xam ne dañoo dof ndax ni ma koy misaale mooy néegu murit boo dem ni nga fa fekk fataab sëñ Tuubaa waa léegi yow mi nekk sa biirum néeg def fi fataab sëñ Tuubaa daal di nekk ci biir néeg bi di def ndaka su dul noonu te yow sëñ Tuubaa boo xoolee fatam bii te li gën a yëm mooy fataab sëñ Tuubaa boo ko tefee ci néeg bi foo xool na nga jàpp ne sëñ Tuubaa lay gis nga taal lampe bu leer nañ nekk ca biir néeg ba fatab sëñ tubaa nekk ca sëñ tubaa da la gis ngay def naka su dul noonu waaye gëmoo ne sëñ tubaa mi ngi lay gis waa buñ la buñ la takkee sang la sang la gas ba mu xóot ne la rott ci biir suuf waa ndax sëñ tubaa mën na laa fekk foofa kon sallaaw boo gëmee ne sëñ tubaa mën na laa fekk ca biir bàmmeel te ku faatu yaa bu ñuy jullee nga defa teew ñuy nga ànd ak ñoom di teew ñu dem nga des tontu layam ahmadou bamba képp ko man boo gëmee ne sëñ tubaa mën fekk foofu rek gëmal ne boo nekkee sa biirum néeg di def naka su dul noonu sëñ tubaa nga fa te ak jub dong lañu suñ tubaa doyee ak njub képp lañu suñ tubaa doyee ak njub képp lañu suñ tubaa doyee suñ tubaa nee na lu ngeen gis ci àdduna ak njuba ko gën ak njuba ko gën ndax ab saay saay mënta amul njub te am na lépp kon nan fexee jub jub ngir sëñ tubaa waxuma jub ngir yàlla waxuma jub ngir rasulullah nan jub ngir sëñ tubaa ci zahir ak ci batin nag kon nan góorgóorlu ci sëñ Tuubaa sëñ Mor noo ngi leen di sant liggéey bii dafa am solo nu bàyyi bàyyiwaat ko xel ni ko sëñ Mor waxe léegi dafa jot ñu war a nekk menn mbooloo moo xam ne saa boo nee am man dañuy xam ne tund làmbaay kenn génnu ci ñépp a ci bokk te benn gis-gis képp lañ am muy liggéeyal sëriñ Touba liggéeyu Serigne Touba boobu ci la ñuy jaare am leenu bëgg àdduna ak àllaaxira Cheikh Mouhamadul Cheikh Sidil Maxtaar daana wax ne kenn ku nekk ci yéen daayira boo bokk nañ nga góor góor boo nekkee ci koñ te bokkoo ci daayira mu amub daayira nanga dem nga bokk ci bokku ci daayira nag yomb na waaye fexe ba jëf ca fexe ba bokkuñu ñu nekk ci kanam te dara mënu koo may lu jëf sëriñ Saalihu Mbàkke daan wax ne téeméeri nit yoo gis kenn bokku ci ak moroom a pas-pas waaye ci tolluwaay rek la rawe rawee ak pas-pas kon noo ngi leen di sant bu baax noo ngi leen di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah